jàmmarloo yi fi amoon fan yi ñuy génn mu ngi wéy di des ci xel yi ci bu muy amal xudma ci julli tabaski bi imaam di féete ci Yoff jàmmalaay àdduwaat na ci bu baax imaam di baas lay di dut baram li nga xam ne moo soxe yooyu la fitna bokki jullit ñi fitna jar naa moytu fitna du tuuti ku yaakaar ne fitna dina tuuti da ngay nax sa bopp fitna nag cim réew wala yu ni mel la koy indi mooy ñàkk a maandu ñàkk a taxawal dëgg ak lu ni mel suñu borom ba subhaanahu wa njub gi mu wàccee ak dëgg gi mu wàccee ak maandu gi mu wàccee buñ ko fi bàyyee ëllëg dañuy xisaab ala kulli haal fitna mooy am mu di ñu seetaan. imaam Libaas Laay di woote dal ak jàmm ci biir réew mi ci loolu mu joxe waale ci ay tegtal. kon nag nun amuñ lu dul jottali li nga xam ne moom lañu ñu war a jottali kon li ñuy jariñ ci loolu fitna yu mel noonu mooy nañu téye sunu làmmiñ nanu gàtt tànk nañu moytu alali jàmbur di ko jalgati bañ moytu di jalgati deret jàmbur moytu di ka tuur kazalika deret jàmbur te ñuy ñaan jàmm fu ñu mën a toll. jëriñ bi ñu dénk wàllum inondation moo fa teewaloon gouvernement bi Isaaxa Diop di wax ni. réew mënuñu ko tabax. te fekk fitna jóge wu fi. ndax fitna dafa baaxul ci dara. te bu xësee yeewu sunu borom rëbb na ku koy yee. bu yeewoo kenn xamatul fan la mën a yem donc sëñ bi dellu si wax ne. ñun ñëpp mu ngi sàkku ñu œuvrer pour la paix mooy maanaam jàmm réew mi dalu réew mi ndax si jàmm rek si nga mën a mottali bépp mébét boo am ci àdduna. walla yéen màggal nañ tabaski alxamis comme ni ko ñëpp ci Sénégal yi defee imaam Libaas lay di ñaan ñu dellu ci waat ci njàngaleem alxuraan te di woo askan wi ñu fexe ba jële fii lépp loo xam ne day indi fitna.